moo tax saa su lu nu mën a def ak fu nu mën a ne bu mbir yi xewee dañuy fas yéene te xam ne ndimbalul sëriñ bi moo nu boole moo tax lu nu mën a jàpp dañ koy bàyyi kàddu yi nag kàddu yi feddali kóllëre la ak kàddu yi cant la ci sunu diggante ak ñoom ci sunu digganteek ak liggéey bi ndax kat lii ñuy def muy jàngum xasida bi waruñu dagg ngir di yëkkati waaye day ay kàddu yu ñu war a jottali ngir sunu kullare ak ñoom ngir ndimbal lu nu yàlla dimbalee ak boole gu nu Sëñ Tuubaa boole ak jàpp gu nu Sëriñ Saalihu jàpp ngir boole nu moo tax ñu yëkkati ay kaddu waaye ñu ngi koy tuuba ko jéggalu bu baax xëy na ne ñun ñii di wax ay taalibi dong la doon ci àdduna ndax kat ab donga moom donga dong lay mën a doon teew gin fi teew ci carte Sëñ Saaliw bii duñ fi dara ab taali bi dong lañ fi doon ngir li ko waral mooy jotaay bi ak carte gi carte bi bañ koy tuddee carte Sëñ Saaliw dañ ko tuddee mënuñu fee toog di nekk kilifa wala dara ab dong dong la ñuy fas yéenee doon ba keroog ñuy ñibbi moo tax nag ngir teewaay bii darul asaar teewaay bi darul asaar barki Seex Ibra ndax tey si suba démb la ñu ko suñ xaari wax ñu ne ko nun mën a def daan ci teew tey suba bi nu xëyee fajar barkeb sëñ saariwu ndax bi ngóor si jàng ba toll ci sëriñ saalihu ganee jamono ci la ci xel dem ndax njëreem lañ jóge carte njëreem lañ jóge ci kër sëñ Tuubaa diggante bi sëñ Tuubaa toogoon bi sëñ saalihu di ñëw àdduna diggante boobu mu naan ku ku fi teg sab tànk ñu jéggal la dafoo teg sab tànk ñu jéggal ña fa ne yërmande jooju ak boole googu moo tax ma teg sama tànk ci baas bi ngir ñu jéggal ñi fi ne ñëpp ngir ñu jéggal ñi fi nekk ñëpp ngir yërmande wàcc ci baas bi te du fi jug ba ilaa yawmi diin barkib Seex Mouhamadou Lamine ndax foofu suñ tuwaa ko wax ku fa teg sab tànk foo teg sab tànk ñu jéggal ña fa ne buñ fa tegee sunu tànk dañuy fas yéene ñëw ci carte Sëñ Saaliw bii teg fi sunu tànk ñu jéggal ñu fi rek ndax ñun ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ kon nag mbégte googu ak kóllëre googu moo tax ñu yëkkati jugee fanu ne ba nu accès teguñ danoo teg sunu tànk sunu si kër gi nuyu ndogga yi ne leen ñoo ngi yeewi ko ngir yërmande googu ak jéggal googu ñu teg fi sunu tànk kon nag nanoo xam ne ne liggéey bi ak kóllëre gi du ñuul jëmbi sëriñ bi la te moo ko teel boppam murit yi li nu war mooy gën a góor góorlu gën a defaraat jikko yi gën a defaraat xol yi te xam ne lii rafet rafet na ba pare muy Sëriñ Tuubaa te ñëpp ko bokk kenn mënu koo seddoo kon bu nu sëriñ bi dimbalee ba boole ñu nanu fas yéene di rafetal jikko yi di rafetal xalaat yi ak xol lépp léppay mat lépp ay baax yal na nu Sëriñ Tuubaa dollee dimbale xay na kàddu yi bu jàgg bu jàllee dañuy yegg foo xam ne si dañuy sunu sunu digganteeg Cheikh Mouhamadou Lamine muy sunu mam seigne bara man no indi fi ñu wax fi leneen te doon lu ko jar kon ñi ngi jéggul bu baax alaykum wa rahmatullah waaw barke jërëjëf sëriñ Abdou Karim Mbacke kàddu yi am na solo ñu ngi sant bu baax di la ñaanal sa doom defal la taw bi lépp loo yéene ci xasida yi ci yoon bi suñu borom defal la lu kaw sa njort ci barke borom Tuubaa kon bu ko defee dañuy yokk Serigne Saliou Bara mooy bu feeñee léegi bisimilah. Mbaye Diagne ko fàtte. nga lu ñaaw sarak ki nga koy fàtte sarak ki Serigne. bisimilah Serigne Saliou maa ngi jégalu. Serigne Saliou loo def noonu kaale gi Gracias.